ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار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 sëñ bi nee na ginnaaw bi ñu yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu di ziar sëñ bi ñu ngi koy ziar baax a baax dañ fee ñëw ci ay anam ci anamu mbokk ci wàllu lislaam bi ak ba wàllu dëkkandoo ak wàllu tamit mbokk boo xamante mbokk deret la mu ne tànk yi moo ñu fi indi mu ne liñ fi indi ñu ne ñu ñëw ci bokk ci yéen ñun ñëpp ñu àndandoo màggal gan ak àdduna sëñ Cheikh Abdou Khadr Mbacké al imam mu ne wax dañuy màggal mu ne loo li nga xamante mooy alxa anamam daf dañ ko dafa màgg ba pare waaye bu fekkente ne ñun ñu ngi koy màggal ndax ñu màggalaale ci ñu ñu koy màggal ndax moom ay mbiram dafa màgg ba pare ñu am ci barkeem bi ñu am ci darajaam tamit ñu am ci martabaam ñun ñëpp xam nañ ne moom nitu yàlla ku bu bu baax la buñ ràññe la mi nga xamante ni mboolem jullit ñëpp ñu ngi doon euh, am mébët am euh, li nga xamante ni mooy mbaax bi nekk ci moom ñëpp am ci sabu kanko wonde o ɓi haaju mum so dañoni mu ne ndax nekkam doomu xaadimu rasul loolu dong doy na loolu doy na martaba waaye loolee nag loolu nag taxut mu loolu jaaxalu ko waaye wanewut loola moom dafa taxaw mu jaamu yàlla ba yàlla may ko martaba bi ko yàlla may mu bokk ci góor yàlla yi nga xam ne dañoo def tawaadu maanaam dañoo def tawaadu maanaam suufal seen bopp ndax yonent yàlla bi nee na man tawaada rafaahu llaahu wa man takabbara xafadahu llaahu mu ne bal gaa yàlla yu baax yépp ñoom ñépp boo gisee ñu am wàllu ci yàlla ci tawaadu maanaam ci suufe gi ci lañ ko amee foofu lañ amee martaba yi leen yàlla jox ñun ñëpp nag xam nañ ne sëñ Abdou Khadir ku suufeel boppam la. mu ne marta baam ci wàllu way juram bu baax bi Cheikh Ahmadou Bamba loolu dong doyoon na. waaye nag loolee. dafa taxaw. muy jaamu yàlla. ba mu bokk ñu bokk ci ñi nga xamante ni tata jaafa junubuhum anil madajii yad'uuna rabbahum xawfan wa taman ila axiril aaya dafa bokk ci ñi nga xamante ni bu demee ba guddi sori lool ñenn ñi di nelaw moom dafay jóg di jaamu yàlla saabu ndax ragal yàlla e jortaade moƴƴere allah ak am yaakaar ci mbaax bi nga xamante ni moom la yàlla déel ñi nga xamante moƴƴere ngannduɗaa maanaam neɗɗo waawi ɗum seeɗa so yaa ak mbaax bi nga xamante ni yàlla da ko dencal ñi nga xamante ni dañuy jaamu yàlla ci façon guddi yooyu te yàlla da leen koy dencal ba yowmal qiyaama koy e ɓeen kooka nag ci la bokk o jeyaama Mm-hmm. juróom allah e korsa muɗum e bokk na ci ñi nga xamante ni yërmaandu yàlla e korsa ak ak ak mbëgg bëgg yàlla bëgg bi leen yàlla bëgg e moƴƴere ak mbaaxam e aljanna ak ajjana bi nga xamante ni moom la leen dëgal o jeeyama e moom bokk na ci ñooñu sabu wiya tan ko innalina amalu sakan jannatul firdawsi mu ne innal ladina amanu ñi nga xamante ni dañoo gëm te ñun xam nañ ne dafa gëm xam nañu tamit amilu saalihaat yi jëf ju baax jooju moom def ko jëf ñii nag seen payu ëllëg ak jannata te jannatul firdawsi la lool la leen yàlla déel te loolee danañ ci jot ñun ñoo ngi ñaan yàlla ñu nit yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ngir seen barke kadi oɗo mu ne alquran bii nga xamante moom dañ jàng ɗo e galle cheikhul khadim fii ci kër seexul khadim buñ fi jàngee al kaysi ala hen loolu du yéem kenn kaysi ala hen du yéem kenn ñun ñëpp xam nañ cheikhu ahmadou bamba nan la mel ci alquran gueɗe makko fof ko alquranul karim mbiram yëpp alquranul karim la ay sa arema ko yo ndaarani mu ne boo ñëwee sax di naan ko seetal ma wala xoolal ma wala maa ngi maa ngi bëgg nga nga xoolal ma dara to tawɗa omo jàngal fi nga fekk foo ko fekk muy jàng loolu foofu la foofu la lay atte mu ne nitu yàlla benn nitu yàlla ɓiyi ko majji doomam da koo réer ni majji daa tukki woon fa réer o yiili mu wóor ko ba sonn gisul koko mu yow ci señ bi mu ne ko man day sama doom damaa réer bi ma réeree nag wër naa ba son way mu koo gis waaye da ko da fek señ bi di jang alquran ki nga xamante moo doon wër yaa doomam mu ne xawma lan mo am

ci mu tëddee rek eh, eh, eh, yàlla dogal mu mu dajeeg boromam maanaam mu noppalu waaye la sëñ bi waxoon dafa daal di am ah, mu ne sëñ bi dafa ne kitaabul rabbi kaana lii wa kuntu mu ne man sëñ bi téere bi man la nekkal waaye man téere bi laa nekkal waaye kii nag kon munuñ wax ay ay ngëneelam mu ne ngëneelam yi duñ wax géej waaye daa upp géej loola nag du yomb wax kenn ku ne nag dañ ciy bay sa sa waar rek bu we loolu weesoo yow mi sëñ Cheikh noo ngi lay ñaanal jàmm yal na yàlla guddal fan yi moo baaxal mujj gi mujj gu rafet li nga xamante moom nga mëbët ngir liggéeyal ko diine ji ak nga li li nga li nga fas yéene liggéeyal ci euh, yoonu Cheikh Ahmadou Bamba e timminde anniyaji ak matal mboolem yéene sëñ euh, Abdou Khadre ak Serigne Modou ak Serigne Modou yàlla na ko yàlla motali ci na la yàlla na ko yàlla motali ci yow yàlla mën na loola lu yomb la ci yàlla yàlla nañu ko yàlla defal mu ne yonent bi nee na udu allah wa antum muqinuna bil ijabati eh. mu ne na ngeen ñaan boo leen dee ñaan bu leen sikki sàkka ciine na ngeen fas ne ñaan googu day nangu ñu nit fas nañ yéene ñaan boobu day nangu ndax yonent bi am na feneen fu mu waxee mu ne bépp lammiñ bu la bu ñaanal te lammiñ woowu yow mi ñuy ñaanal mooy mooy woo ko yàlla yàlla da day day day day day nangu ñaan gi ɗum noon ene hawre aaya allah mbiɗo ad uni astajib lakum mu ne loolu dafay dëppoog aaya yàlla bi nga xamante dafa ne fad uni astajib lakum ñaan le ma ma may leen kanko e ñagonomo yo ñu ngi lay ñaanal ñu yàgg fee ñëw yàgg la fa fekk nga ànd ak wér ak xéewal lépp loo xamante ni loo loo bëgg ci mbaax rek yàlla na la ko yàlla defal bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam asalaamaaleykum wa barakaatu imaam Bousso yaa ngi mboolem ñi nga àndal ci suñ mbokki alpulaar yi dikki ngeen tey jii ci at mu yees mi noo ngi leen ci ndokkeel li ñuy jëkka def mooy loolu ci atum euh, hijriya bi nga xam ne nun jullit ñëpp mooy sun taarix euh, maa ngi leen ci ndokkeel bu baax euh, lii nag nga xam ne moo fi xew tey ji te yàlla def ngeen dikkaat fi ni ngeen ko baaxoo di def ci at mu nekk te mu dellu rekk ci kóllëre gu ngeen amoon ak sunu waajur sëriñ Abdul Xaadir ak euh, ginnaaw ba yàlla defee seen diggante ak ñoom ak bokk mu bokk ci ñi gën a bokk ak yéen euh, ndax moom yàlla daa def mbàkke la ak mbusoo bi ñoo ko mm-hmm. séq moom sëriñ Fallu waaye ñëpp seeni mbokk lañu ndax yaakaar naa ne Ousmane Mbàkke Fuuta la jóge woon boo booy ci topp rek ñu dem foofu kon nag euh, am mbokk gi yàlla def na ko yàlla nag buy def du tàggoo day def li ko soob bu lim def li ko soob ba mu def ko it ku ko bànneexoo mu mu teral la loolu nag kon noonu béggee nañu képp ku mu def muy suñ mbokk bànneexoo nañu bokk yéen it day mel ni loolu moo nekk ci yéen xëy na mënu leen a wër dëkk bépp di bàyyi seeni soxla waaye baaxoo woon nañu bisin yit yëpp takkusaan boobu sax du ñemee ñëw fi sëñ bi ndax boobu ay gone lañ waaye ngoon bu jot bu sëñ bi génnee ci mbaar bi ñu gis leen ñu def délégation dikk ci loola lañ bàyyiwul ba tey jii kolleere googu ñu seqoon se ak Cheikh Abdoul Khadir tànn ko ci biir njabootu Serigne Touba gi ak fu ñu mën di dem xëy na mënuñu dem fépp waaye kon bokk na ci boole woon nañ ko ci ñi nga xam ne danañ ko di nemmiku ci bis yi nga xam ne jullit ñi dañuy wër di balonte ak ak siyaarante loolu jagleeloon nañ ko moom itam mu jàppaloon leen ko loolu ëpp ci ñoom ba ma leen di xam. Euh, booba samay at bëriwut amaguma fukki at ci ñi fi jiitoon du leen fàtte mukk euh, ba tey na nag tey jii lii ngeen def mu ko ci yiw bi nu daan baaxoo defal at yi ñu weesu yépp noo ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm dox ak mbokk yàllaa ko digle dox kóllëre yàllaa ko digle kooko xas séqal xam ne du du du du relation buy tàmbali ci àdduna yem ci àdduna ci àdduna la tàmbalee waaye day dem ba ci bis ba ndax daa ngi dikk ñu ne la sa kóllëre sàngam noo ci def aw foo bilan kon nag loolu moom yéen a ngi dox dëgg la nag ñaari wel wàll yëpp ko war di dox waaye li ci ëpp yéen yéen a koy def kon nag noo ngi leen sant ci loolu li leen gërëm li ngeen di dox doxaale no kon nag moo tax kóllëre gi dogut benn yoon ndax fu ñu amee yitte rek buñ geesoo gis leen ñun sax noo leen ñaanoon ngeen di bàyyi ba bisub tey bii ndax nii nu toogee bu doon démb duñ ko man ba tax na nag xam naa ne tey jii démb yeex nañoo koo ak jii li nga xam naa démb bu mu àjjee ji mu dajeeg màggal gi moo tax gars yi nag teewul ñi ngi leen doon séntu jàppoon nañ ni daan def ngeen di def noo ngi ñaan lii mu yàgg suñu digg xam naa li ma ciy dolli tey daal mm, yéen da bokk ci ñi nga xam ne dëkk bii moom man ngeen fee dëkk ndax weesu leen jaamu yàlla ak liggéey japp senum jambour lolou mom lolou nag ci wax wali wala fi ñoy wax japp sa jambour way lolou mom moy moy lu soon sa yon nekul mando lolou li ñi firee loolu japp sa sa njàmbur ba tax na nag euh, lépp loo xam ne aw yiwla la wu jëm ci dëkk bi da ngeen ci am walu bu baax ndax Serigne Touba mo rëdd dëkk bi lim ci ñaan boromam lépp mu mu am melo yu mu wax ni ñu mel noonu ñooy tax ma di ko fàggu wa man faan li kulli haadin muslimi waaye wa mat faan an kulli haadin mujrimi ku ku dib jullit te tënku ci njub sëriñ Tuubaa ñaanal na la lu fiy njariñ nga sa wàll bopp jënd ci képp koo xam ne aadin mujrim la ñu ngi ñaan yàlla mu dàkkul ko ko ba duñ nekk mën a nekk ci dëkk bi yaakaar naa amoon na euh, mënoon a settantal la doon daanako wax ne barab bu ne ngay mën a gis dëkk ak góor romb lañu ñu ne la cey kii lim def ci dëkk ba mu gis Touba balaa àgg ci màgg faatu mbaa mu jóge fi loolu moom noonu ñi di ba ne xam nañ ci dara gisuñu kenn koo xam ne si ba muy ndaw nekk na ci ndaw sax ca te génnul mbaam faatu loolu moom kon day mel ni dëkk bi yàlla ñaanu Sëriñ Tuubaa googu nangu ni mu nangoo nag ci di ko génneel ñi mu fi soxlawut mooy kuy tooñ nit ñi mbaa ngay tooñ sa borom ñooñu ñëpp moom loolu moom loolu la dëkk bi nag ba mu des loolu waaye nag képp koo xam ne si yaa ngi ci jullit foofu moom néewul ab murit néewul ab tijaan néewul lenn ab jullit la wax bu jub mooy lim bi ñaan loolu nag yéen mën nañ ko seeri ci yéen ndax bañ leen di xam yàgg na saa su ne at yëpp maa ngi koy wax tey daal li ma ci dolli mooy bëgg bu ngeen delloog jàmm ba fan yi weesu ngeen seetal na kenn ci yéen koo xam ne lu uh, njaboot gi soxla ma mën leen a boole ñu nekk ci commune bi ndax yitte yi nga xam ne da ngeen koy yittewoo ci commune bi nit ki mënta xamle boppam waaye noonu xam nañ leen bu baax kon nag loolu ñoo xam man xam nañ ne it li li nga xam ne si moo fiy dikk bokk ngeen ci am ngeen ci wàllu wér ndax tonn bu tomb sëñ Tuubaa moom loolu li ko li haadin muslim yéen loolu ci ngeen nekk kenn ceen kuy def loo xam ne nii euh, manis naa wax ne sëñ bi taamu ko ci dëkk bi néew ci jaam yàlla ak liggéey moom jàpp sa njàmbur loolu moom euh, loolu ci ngeen nekk mën nañ ko seere bu baax ba tax na nag kon ci waa dëkk bi ngeen bokk kon nag bu leen ci ker sa jàpp luy seen yitte rek nan koy yëg bu ko yëgee bu sabee yàlla dañ ci taxaw waaw te yéen wet gi ngeen dëkki sax nag day mel ne moo xaw a fare farewoo ak kii bi waaw te xëy na nag mëneesut foo toll di kii waaye nag bu loolu xasee ba am rek ba noppi rek incha allah naag mu ngi ciy bay di moom yaakaar naa minanti naag waaw bu ngeen seetee koo xam ne nii rek doy na leen ci te euh, man di leeral yitte ji fa mu gaa yi dañ ci mën a taxaw incha allah loolu daal. man naa bu ma leen gisee danaa ko sàkku ci yéen waaw ngeen wax ko ndax euh, am naa ne nit ki waaw lu mën a nekk la maa ngi leen di sant la bu baax di leen gërëm ci turu nag njabootu Serigne Abdou Khadr tey moom dëgg la yi tey dëkk bépp la waaye nag kër Serigne Abdou Khadr la xewee kon nag tubaarkàlla noo ngi leen di gërëm bu baax ci loolu di leen ñaanal yàlla mu fayal nu leen ngeen ji pay waaw yaakaar naa nag sëriñ Touba am nay jamono maa ngi koy nettali fii démb ñuy jàng xasaayit yi njàng mi dugg ko ba mu ñëw ëmb ci mbub mi mu sol ay ay yëf ñëw sotti leen ñu ne ko jasaakumullahu xayran mu demaat ëmbaat indiwaat ko ñu newaat ko jasaakumullahu xayran ba muy ñett yoon xam naa ñu yërëm ko ci baagante bi ñu noppi mu ne leen bu ngeen noppiwutoon di du ma du ma bàyyi baat boobu ngeen di wax ku ko ku ko xeeb da gisut ku yàlla fay kon nag noo ngi leen di wax jasaakumullaahu xayran wa kafaakum dayran jaa ngeen jëf wa salaamualeykum kullu aamin wa sarada